ko dooree rek moo nekk pour daal di wax kii di président Adama Barrow ñoom ñu daal di terale nit ñi nag bokk nañ ci West Africa International Organisation bii nii pour daal di gën a lii di nga xam ne nag moo nekk nuclear test treaty bi bu nga xam ne nag Gambia war nañ see bokk lii di nga xam ne nag moo nekk président Adama Barrow won na ne nag moom nit la bu nga xam ne nag lii di yëfi jàmm ak lii di kaaraange dara la nga xam ne. mu ngi si liggéey Gambia te nag lii di nga xam ne moo nekk national security dina si gën a am doole torop lii di nga xam ne nag moo nekk loolu ñun naka loolu la ñuy séntu te nag pour daal di bokkal Gambia si lii di nga xam moo nekk international forum lu jëmee ko treaty bii nii bu nga xam ne nag député yi ba tey ñoom ratify yanguñu ko lii nag di comprehensive nuclear test treaty bii nii treaty la bu nga xam ne nag lu toll si 25 years buñ ko ratify bu nga xam ne nag 185 dekasi bir adu nabi aka yubiri Afrika anyom bokananci nyunga hamnina ka ratify nan a treaty bini asibir ecowas gambia reka neke dika buga hamne nyom ratify anguny ambir mini atena gambia sen ratification bila nekri har al nyidi gambia sun fa do bokke dina wone nak ecowas nyep nyo bokka si lini tena kalulu darla lu nga hamne dina gena jox ali nga hamne nak dole